yëmunu foofa ñu demaat ci préfet mu tànn ñu service yi nga xam ne soxla nañ ñu dolli wanok wala ñu defaral leen ay wanok loolu itam croix rouge ànd ceeg le préfet ak de service yi mu concerné ñu fas yéene la defal loolu lépp nag ci croix rouge sénégalaise waaye ci ay partenaire am jaarale ko ci bu Mbacké fas yéene màggal gi képp xam croix rouge liggéey bi doon am solo bi ñu ci mbas mi yéen yi ngeen ci defoon nañ weer ak ñaar fukki fan ak juróom ñoo ngoon ci gu ci biir Touba Mbacké ku fi tawat ñu jëlee sa kër yóbbu kër docteur muy évacuation d'urgence yëmunu fa ñoo ngoon ci kër docteur yëpp structure sanitaire bu am élément croissance fa di jàppale waa kër docteur yëmunu foofu ñoo ngoon ci béréb bi mbooloo bi daje di def ay sensibilisation waaye màggal gi di jëm nag màggal boo xam ne dafa daje contexte Covid 19. fas yéene màggal gi li ñu fas yéene mooy euh, médecin chef régional def noo jox ay poste avancé fépp fu kër docteur nekk ci département bi moo xam hôpital nga